askan wi ñaawlu nañu ubbitew usine bi fa ne te di toj ay xeer ba tax na ñoom li leen gën a jaaxal moo di bile entreprise guddi rek lay liggéey. ci fii may waxee ak yéen am na ay chinois yu fi ñëw ñoo xam ne bëgguma wax kàddu yu ñaaw seen der wante la ñuy def mbiru kàccoor la waaw naa ko wax mbiru kàccoor la ndax liggéey boo xam ne guddi nga koy def ndax xam nga ne la ngay def jaaduwul. à partir de vingt et une heures vingt et bu leen fi fekkoon ngeen machines yi commencé. tërërër ñuy toj xeer yi di ko lay ci guddi gi bu fekkee amoo douche intérieure ku mel na man boo génnee dem di tuuri ndox sa wanoog boo génnee asamaan si day lëndëm këris bile usine bu ñu sukkandikoo ci askan wi yeewoo ci boobule gox ay jafe-jafe lay indil nit ñi ci seen wàllu wér ju yaram te it baaxul ci mbéy mi ak i jur gi. boobu mi ngi nii feeñ na ci garab yi yéen a ngi gis benn garab meññatu fi du mango du leneen garab yëpp 2 pour cent la ñuy meññ waaye léegi li fiy rey nit ñi li fiy sonal nit ñi doonatul sibbiru doonatul ngas doonatul jàngoro yi ngeen xamoon waaye feebaru dënn sëqët. ba tax na ñoom ñoo ngi dànkaafu nguur gi ci doo d'ordure bi nga xamante ni fas yéene nañ koo def seen gox ba tax na ñoom nee ñi duñ ko nangu benn yoon. xanaa benn dépotoir buñ fi bëgg ubbi ci kàmb yi nga xam ne gas nañu ba jël phosphate ba def ko tuurukaayu mbalit. lu tax nag ñu bëgg koo def sunu boor fii naa liñ ci jublu. mbalitu Tiwaawan mbaliitu Thiès mbaliitu dëkk yi ñu koy sotti ci kàmb yi te fu ñu sottee mu fees dañ koy war a taal buñ ko taalee saxaar si génn loola moom moo gën a doon tooke ci nit ñi. ci bile situation population bi nee nañu dinañ def seen kéem kartan ba lu ñu bëgg ñu am ko ba tax na ñoom ñoo ngi ñaan gouvernement bu yees bi rawatina njiitu réew mi mu def lépp lu ñu mën ba boobule usine ñu tëj ko.